ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indil na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mu génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core x ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñu ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ku toog ci seen bureau Core T4 Core X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoo ak jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci dañu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gii leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store, wa ala millati rasuli wa manhajil xadim asalaamualeykum eh, ci guddi gu tedd gi guddi gu tedd gi di laylatu mawlidi nabi ñu ko ku tedd ki waxe ca jazbul xulub laylatu mahwiriya bi laylatu mahwi taabi wa tuhri zi taasumi ginnaaw bu ñu siyaaree kilifa gi sëriñ Mouhamadul Muntaka ziyaare Sidi Abbas ibnu Cheikh Ibrahima Fati ziyaara sëriñ Moustapha Hafsa njabootu borom daaru gi yëpp ziyaara sëriñ Moustapha Saleh njabootu ku tedd ki yëpp ziyaare njabootu Seydina Ousmane Gëlé daaru ak Chukori borom daaru ak Seydina Abbas ak mbokki taalibe yi fa nekk diggante daaru ak Shukuri yëpp di ziare xulafaa u yëpp xalifa yëpp ci diine islaam ziare kilifa yëpp di ndokkeel itam njiitu réew mi te di leen masawu ci coono yi ñoom ku leen mere rekk danga nga comprendrewul ndax li ñuy daj metti na lool te dafa mel ni dañoo dégg bayitu ku tedd ki xadd àqanil yow ma xubbul ahli wal watan xandarki ma li zawil anwaari wal fitan li zawil anwaari wal fitan nga xam ne ku tedd ki wax na ni bu doon am gàllankoor dara waralu ko lu dul bëgg réewam ak ñooñ réewam waaye ba mu jógee ca martaba boobu itam di jàll di yéeg ndax martaba bu mu jógee rekk dem ci beneen waxuma baatinan zahiran laa wax gis nañ mu wax ni waa jahani bil bishri kulla layli maha naharihi wa taaba naydi maanaam 24 heures yi di laa ilaha illallah muhammadu rasulullah nga xam ne guddi gi ngay jox laa ilaha illallah bëccëg bi nga jox ko muhammadu rasulullah seeni bien seeni bien secret yàlla jox na ko ko nee na looloo sedd xolam ñu gisaat it mu waxaat ni waa jaxani bil bishri kulla mi wa kulla shahrin wa xaw mi mu mel ni kon li des ci ahlu la ci waa état bi mu mel ni kon bu amee luy des li des rek mooy ñu référé ci ab joxoñam ndax moo ko wax moo moo ko wax ni koy moo wax ni yàlla daf ko jox li baax ci guddi gi ak li baax ci bëccëg bi moo tax muy guider peuple kon dafa mel ni bu dara dee des rekk mooy ñu tegtaloo ci moom ndax li baax ci guddi gi ak li baax ci bëccëg yi ku ko yor ak li baax ci bis yi ak li baax ci weer yi ku ko yor kooku boo yëngu cim réewam ndax nee na yor gi mu ko yor moo tax muy guider peuple am di leen won yoon wi ni leen yoon waa ngi nii moo tax nag ba nekkee muumin ba noppi nekk muslim nekk murid ba nekkee mu'min nekk muslim nekk muhsin nekk murid jéem a nekk saadix jéem a nekk nabil ndax nee na ki boole yooyu muridan saadixan wa nabilan lay won yoon wi uri ci wacci maliki sabila kulla muridin saadiqin nabila waaw kon nan def lun man ak lu nu mënul ba bun ne ay murid la ñu itam ñu fa yéene doon ay saadix bu ne ay saadix itam bu ci rafetee njort ñu fas yéene doon ay nabil ay nubala pluriellement kon mu mel ni raïs bi di président Macky le président de tous les sénégalais bu fekkee am nañu lu ñuy dese mooy loolu ku tedd ki nee na secret guddi gi ak secret bëccëg bi ak secret bis ak weer yi moo ko yor nee na looloo tax muy giide pëpp am loolu leer na nañ kon projet de société dafa jot boroom guddi gi nga xam ne bi muy ñëw suñu boroom di ko yabal ngir mu tëj mursalun yi mu tëj leen moo tax ñu naan ko xaatimu nabiin wa imaamul mursalin faveur bi ko suñu borom defal subhanahu wa taala jàng nañ ko tedd ki ne madda ilaya nafa fil kaw nay ni bi jaahi man wulida fil it nay ni ndem ci bisu altene ci la feeñoon ca màkk ku tedd ki wax ni l'émergence ki nga xamante ni bii mooy le maître ici-bas nekk le maître le maître de demain après la mort ici ba et dans l'au-delà maanaam ki yilif fii ki chef fii chef fële nee na moo ko jox mu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na mi nga xam ne mi ngi juddu ci bisu altine nee na kooko ko jox njariñ njariñu àdduna ak njariñu al gis ngeen ca jazbu alhamdu la wax lil xaqil mubin man kaw nu hul yee yabin maha jamii niam jamii naam jeexal nay bu doon féminin danga nga naan louange à la vérité lil xaqil mu biin maanaam lim foofu nee na daal ki mat gërëm nee gërëm ki ko moom mooy ver nga xam ne moo amee vérité absolue mooy xaqul mu biin te nee na ci téereem bii di alquranul karim di ay waxam ci la koy gërëmee ci la koy sante